dañuy faral di wax naan loo jàng mën ko waaye loo dënnu mu dëgër ki boole jàng ak ndono du kenn ku dul Cheikh Ahmed Tidiane Ba ibnu na Nourou Ba borom kurus gi dajale ay xam-xam yu fasantikoo si wàllu ñaan moo ci gaaw nopp moo ci mën si ñetti fan laa la may nga gis résultat wàllu ngóor du ko xëccoo kenn yow mi bëgg bayre mbala nga bëgg ràññeeku ci li nga yëngatu itam fàtte la yow mi ñu liggéey ba nga naroon xàdd ci sa àdduna ñëwal nga seet si Cheikh Ahmed Ba mu fajal sa soxla ba noppi la kaaraange gu ànd ak ubbeeku xam gi mu xam garab ak reen may ko ku mu ne jàkk sa aju faju yow mi bëgg a jokkoo ak moom wooteel gaaw ci numéro bi 77 400 00 35 77 400 00 35 Cheikh Ahmed Tidiane ba daal ñàkk koo xam wóorul. nuyu nañ leen ziar leen yéen ñi ñuy suivre ci 4appuis di leen jaajëfal baax ci seetaan bi ngeen ñu seetaan partout dans le monde tey ñu ngi fi euh, Ouest Foire wala Nord Foire Balla Nord Foire seet si fii Balla Diouf. fas yéene waxtaan ak moom ci benn champion bu mag bu ñu xam si làmb muy Balla Gaye 2 tey nag ñëwoon fii seet si mu fas yéene ñëw décortiquer ay entraînement am yu mu wane fan yi si compte YouTube am BG2 TV Balla Diouf jox ci xalaatam nan la gisee forme physique am ak entraînement yi nan la ko gisee Balla nuyu naa la ziar la. waaw maa ngi lay fay euh, Khadim kat appi du nuyu mbokku internet yëpp ñu nekk Sénégal at bitim réew ak partout dans la diaspora ñi nga xam ne tey ñu ngi suivre kat appui waaw kontaan trop ci ñëwaat vraiment. ñu war a defaat benn liggéey analyse boo xam ne am na solo parce que actuellement actualité la euh, ci diggante Balla Gaye at euh, Bombardier ñu gis ni nag Balla Gaye mi ngi INSEPS di entraîné nekk dans les très bonnes conditions mais teewul ñu gis Bombardier amit fii mu nekk très très très très en forme nekk en super forme vraiment ñuy lancante ay pic donc nag ci loolu la ñu bëgg a ñëw waxtaan ceeg suñu mbokku internet yi ñu nekk ci biim réew mi ak bitim réew. macha allah na solo mais bala ñu ñëw ci vidéo entraînement Balla Gaye bi. dèjà seen picc yi ñu lancante instant bi kan nga gis ne moo xaw a gagné bataille bataille psychologique. waaw xam nga instant yi nii moom daanaka mun naa wax ni euh, euh, ping pong la. ah ba kii mi ngi wax kee di wax te ñoom ñaar ñëpp booy wax ku nekk li ngay wax wax ji dafa ànd ak détermination kii dafa gëm li muy wax kee gëm li muy wax parce que bombardier bu ne bu toogee ne Balla Gaye li mu yaakaar ni ah, moo li mu yaakaar du loolu parce que moom am na fu mu teg boppam tey ku gis ni tey Balla Gaye yëkkati xaalis bu bëri ah dem ba UNICEF ah di fa entraîner donc mooy wane ni tamit combat bi jaral na ko wax dëgg yàlla dal na xel et waaw. waaw li ma gis ni wax dëgg yàlla dal na xel ku xool Balla xam ne instant yi nii euh, def na travail yu séchage séché nañ ko ba graisse gi dëñ donc mi ngi ci travail yu développement tey ku xool Balla xam ni tey muscles yi ils sont saignants mi ngi liggéey liggéey bu mucc ayib. te ko xool il est en super super super forme ba pare ànd ak xel mu dal xam nga forme bu ànd ak xel mu dal tey nga ñëw fii tey INSEPS nga gis ko tey muy ànd ak ay ñoo xam ne tey ay MMA la ñuy def ay lutteurs MMA la ñuy def nga xam ne ils sont tellement techniques ñi nga xam dañuy boole euh, pratiquement quatre cinq six sports boole ko mu doon benn tey loolu da koy indil beneen un plus boole ko INSEPS ku ko xam xam ne INSEPS am na ay mbër am na ay lutteurs ay am na ay champion d'Afrique ñu bëri ñu ngi INSEPS am na ay boxeur ah am na ay mbër ah am na lépp am na ñi nga xam ne tey MMA la ñuy nekk tey mélange yooyu yëpp tey da koy indil beneen beneen confiance tey Balla Gaye mën nañu wax ne mi ngi si beneen confiance parce que xam na ni il waaw. waaw fii ku xool fii Balla Balla Balla Gaye mi ngi def euh, squat donc euh, squat lay def donc di liggéeyaale quadriceps yi donc mouvement la boo xam ne tey. waaw boo ko tàmmee di ko def tey say tànk day dëgër day solide du dëgg tey ku xool tey lii muy lii muy def nii mooy rameur bi muy def nii tamit boo xoolee loxo yi xam ni balagay Gaye vraiment dafa am dafa am force naturelle ba pare mi ngi koy liggéey di ko développé te INSEPS bi mu nekk tamit euh, ci condition yi mu nekk vraiment macha allah macha allah tey mun naa wax ni tey Balla Gaye ku ku bu ñëwee tey Sénégal ba summeeku tey defe naa ne du am benn supporter am wala benn amateuru làmb bu ne kii liggéeyul te loolu lu am solo la ci mbër liggéey liggéey bu mucc ay day dalal xelu mbër te ku xool Balla xam ne instant yi nii fi mu jëm ragalu ko xelam dal na ndax li muy liggéey dina ko permettre tey xelam dal ba mu mën mën a toog di tëkku adversaire am. moom moom bi. waaw non rameur bi jóge na ci. donc kii mooy quadriceps mooy liggéey euh, jël cuisse bi ci kaw. waaw mooy tax tànk bi def ay v mooy tax tànk bi dëgër tamit ci biir donc lig voilà voilà voilà liggéey la boo xam ne tey lii ngay xool nii ku xool Balla xam ni instant yi daanaka daanaka daanaka il est à à soixante dix à quatre vingt pour cent de son de de de son préparation donc mun naa wax ni tey Balla mi ngi ci forme olympique mu ngi ci forme olympique vraiment. waaw bii mi ngi liggéey arrière cuisse ki mooy issue jambe donc euh, kii tamit day permettre euh, nga am dëgër laay ni ngay yéegee ci duni wala ni mbëri di marché canaré di arrière kii tamit da koy liggéey day tax tamit kii bu ñu la dawee song wala ñu dóor la ko nga mën a wàcc jógaat mën a récupérer vitement vite fait tey ko xool tey Balla euh, préparation bii mu jël nii préparation programme la programme mooy lépp ci programme la lépp lu muy liggéey ci programme la donc kon liggéey bi mi ngi tegu ci yoon mi ngi jaar ci yoon te defe naa ne li ñuy séentu ci Balla ñu ngi koy commencé gis forme bi et vraiment tey ku xool at yi ci ginnaaw Balla Gaye après nga xoolaat Balla Gaye nii xam nga ni changement bu bëri am na liggéey bu bëri am na ci ginnaaw donc liggéey boobu nag ah tey bon defe naa le 30 juillet le 31 juillet lañ koy gis contre Bombardier wax dëgg yàlla ku xool Balla xam ni wax dëgg yàlla macha allah daanaka pare na daanaka pare ne beneen beneen beneen genre euh, mu mel mu mel luy def ba genre bi pratique bëri xaram moon la. bii lit ko mhm. waaw bi waaw bii boo ko gisee da ngay xam ne INSEPS lépp a ngi fa xeetu champion yëpp a ngi fa champion boxe karaté judo grec romaine ah, lépp a ngi fa. te boo xoolee lutte gréco-romaine moo ëpp moo ëpp technique suñu bëre dóor te boo xoolee ah moo ëpp technique moo ëpp mouvement te tey lii muy def nii fii avantage la ci moom avantage bi mu nekk ci moom mooy tey lutte gréco-romaine mbërur gi lutte gréco dafa neex dafa naqaree bëreel du dëgg te tey bu fa demee ba ës ci ñoom nii ës fa ës ës ës tey dina ko permettre tey lépp luy xeetu bëre mu mën ko maîtriser lépp li nga xam ne tey mooy xeetu xeex mu mën ko maîtriser parce que tamit àdduna moom sportif durant toute son carrière tout sa carrière day apprendre toujours day apprendre toujours muy màgg toujours di évoluer pour toujours di apprendre Balla ñëw bi mu ñëw fii nag en plus la parce que fii dafa am ay athlètes hors pair ah fii dafa am ay athlètes hors pair yoo xam ne tey c'est des champions confirmés c'est des champions yi nga xam ne kenn ku si nekk sa dëkk wala si discipline bi ngay def champion nga tey nag mu ñëw fii di mélanger wu at ñoom di di def lii nii loolu tey lii beneen expérience la beneen expérience la boo xam ne moom am na ko te boo xoolee tey un plus lay doon ci moom parce que nii c'est des champions tey mu ngi leen di maîtriser di bëreek ñoom te tey dina ci jàngaat yeneen xeetu technique yu bees yeneen xeetu déplacement ci bëre ak rapidité lépp dina ko mën a vraiment boo xoolee lii muy def nii ah ku ko ku ko xamul ku xamul ku xamul bëre bi mënoo ko def te tey boo xoolee mi ngi adapté wu mi ngi adapté wu mi ngi wu te tey ah Balla Balla mii ñu gis de wax dëgg yàlla Balla du Balla bu bees la Balla la boo xam ne tey am na beneen énergie am na beneen vision et am na beneen projet de carrière tey moo ko jaral tey mu ñëw fii di di défoncé wu wax dëgg yàlla macha allah macha allah macha allah tey Balla Gaye ay amateur am ak ay supporter am tey du ñëw ci làmb ñuy tiit wala di am lu ñuy xalaat parce que xam nañ ne seen mbër il a très bien préparé. parce que wax dëgg yàlla ku xool xeetu bëri yi Balla di bëri nii wax dëgg yàlla nga xam ni mi ngi ci forme parce que bëri bii xeetu bëri bii dafa metti parce que déjà un ci tapis la deux vraiment amul ngemb voilà te trois ki muy bëreel nii dafa mën a bëre donc yii yëpp tamit aspect la yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, un plus la koy indil boo xam ne tey dina ko mën a dimbali ci combat bi mu jëm du dëgg Eh, ci yeneen combat yi parce vraiment ku xool liggéey bi Balla di liggéey nii wax dëgg yàlla tey mbër yëpp képp ku ku bëgg nekk champion wala képp ku bëgg dara ci sa làmb tey ku xool Balla day xam ni Balla mi fonk na làmb ji ku ku xool Balla day xam ni Balla mii bëgg na dara ci làmb bëggaat na dara ci làmb loolu la ñuy liir ci ah, ci détermination am loolu la ñuy liir ci kanamam tey xëy na tey amaat na yeneen ambition yu bees yoo xam ne mooy tey reconquérir euh, le titre roi des arènes xëy na tey ku xool Balla ni muy défoncé ni pay peut-être tey loolu moo nekk ci xelam et puis voilà ngi liggéey vraiment mi ngi liggéey normalement mi ngi liggéey liggéey bu tegu ci yoon et vraiment ku ko xool xam ni tamit boo soxorul rek xam ni bala moom vraiment mi ngi ci forme vraiment mi ngi ci forme macha allah jëf di nuyu mbokku amateur yëpp di nuyu euh, auditeurs ak auditeurs yu yu quatre appuis yëpp yi nekk Argentine Brésil vraiment Danemark Canada États-Unis France Europe fépp rek képp kuy suivre quatre appuis rek donc ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.